sukkandikoo ci yëglekaay bi nag rapport bu nekk nag njeexitalam mooy mu am ay poursuite les ko yëglekaay ne lu jëm ci wàllu assise de la justice suite yi nga xam ne rek moom lañu ñu war a amal jëmale ko ci rapport cour de contrôle yi nag ay leeral tukkee na ci jëwriñ ji ñu dénk wàllu yoon taxawaay bi ñu war a am rek mooy bàyyi juge yi nag ñu daal di topp yooyey dossier nag bu ko defee ñu xam nañu ko war a càmbaree ba kenn ku nekk nag li war ci yow ñu daal di koy def nag du am benn règlement de compte waaye nag képp kuñ ca tudd rek di nga wuy si ngir leeral tuuma yi nga xam ne rek moom la ñu gàll ci sa ndodd vox du jëmale ba tey nag ci yooyee rapport ni ki tey ji nag ne garde des sceaux jamono ji nag fas yéene naa taxaw nag ngir ñu daal di ciy indi ay leeraange bu ñu sukkandikoo ci Ousmane Diagne mi nga ne rek ma ngay xam le ne service yi nga xam ne ñoom ñoo féetee ci parquet bi nag ñoo war a càmbar yooyee rapport dossier bu nekk saytu ko xool li nga xam ne rek moo ca war ñu daal di ko cay amal ay poursuite lay doon yoo xam ne rek daañu ko saytu bu baax a baax jébbal ko ay magistrat yu indépendant ba noppi xarañ ci seen wàllu liggéey ngir ñu mën a am ay njeexital ci yile rapport lu jëm ci wàllu modernisation ñeel justice presse bi fii ci réew Sénégal nag moom jëwriñ ji ñu ko dénk nag ma nga cay joxe xalaatam bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu laataa ñoo yee salaat bi le secteur rek faaw rek ñu xam góom bi ana fu mu féetee ngir mën caawut ay saafara projet bi nga xam ne rek moo soxol lanceur d'alerte yi nag moom jëwriñ ji ma ngay xam ne ni nag def nañ ay jéego yu am solo te balaa yàgg dara nag daanu jébbal texte yi nga xam ne rek moo ci tukkee kii di président Bassirou Diomaye Faye Le Soleil yëglekaay xëy àddu jëmale ci kàddu yi nga xam ne rek moo tukkee ci Ousmane Diagne jëwriñ ji ñu dénk wàllu justice soxal rapport yi nga xam ne rek moo soxal yu ko corps de contrôle moom jëwriñ ji di leeral ne nag képp kuñ ca tudd rek na la leer ne di nga wuy ji yoon ngir indi ay leeral lu jëm nag ci dialogue national bi nga xam bokk na ci jooyantiwaat rëq-rëq yi nga xam ne rek moom la askan wi di jànkonteel rawatina lu jëm ci wàllu yoon Walf Quotidien ne jamono ji moom nag yat wa léegi mu dal ci kaw gaay yi ginnaaw bi nga xam ne rek jëwriñ ji génn na di leeral na règlement de compte duñ ko amal waaye poursuite moom fi nga xam ne rek moom la ci kilifa yi Sénégal bëgg a yegg yéene bi ne loolee bokk na ci beneen defi bi gën a soxal Jomaay Fay lu toll ci mille sept cent milliards nag moom la ñuy dugal at mu nekk ci wàllum importation ñeel produit alimentaire yi ci budget bu toll ci sept mille milliards ngir yegg nag ci wàllum souveraineté alimentaire faaw rek Sénégal daal di ciy xartànku tubayam régime bu bees bi nag jamono ji bëgg nañoo indi ay yi ngir suqali réew Sénégal loolee nag dañ koy jaarale ci wàllu mbay mi wàllum napp gi ak wàllu càmm gi les éco yëglekaay xëy àddu jëmale nag ci conférence épiscopale bi nga xam ne rek évêque yi doon nañ ko amal ña ngay sàkku ci état bu Sénégal ngir mu daal di xool nu mu mën a wàññee nag dund gu cher gi ba mën a jàppale njaboot gi fexee wutal ndaw ñu am xëy waaye tamit sàkku nañ ci askan wi nag ñu daal di amal ay réconciliation ngir jàmm ak dal mën a am ci biir réew Sénégal Vox Populi feelu ko ne situation bi nga xam ne rek Sénégal dundoon na ko ci diggante mars atum 2021 ba suñu jonn yàllaay tey nag tax na ba évêque Sénégal daal di amal ab ndaje nag sàkku ci état bu Sénégal mu daal di fexee nag xool nu ñu mën a jàppalee askan wi jëm ci wàllu dund gu cher gi askan woowee itam nag bàyyi xel lépp loo xam ne rek moo mën a jur jàmm ak dal fii ci réew Sénégal Sénégal jamono ji nag liñ fiy teg dorog bëri na lool ba jéggi dayoo le quotidien yëglekaay ne fi mu toll nii kay Sénégal mooy marché noir bi nag lu toll ci deux cent soixante quatre kilogrammes bu cocaïne nag moom la waa douane teg loxo foofee ci Koupentouna yéenekaay bi ne dorog boobee bu ñu ko xaymaa nag war naa toll ci ñaar fukk benn ci ay milliards ci suñu lu toll ci deux cent vingt huit plaquettes yoo xam ne dañu ko nëbboon ci benn réservoir camion frigorifique boo xam ne rek immatriculation bitim réew la yor ñaari doomi aadama di ay ressortissants yu dëkkee ci sous région bi nag ak kenn koo xam ne rek mi ngi dëkkee ci bët gànnaar bu Afrique ñoom lañ ca daal di teg loxo libération ne lu jëm ci wàllu drogue boobee nag Abdoulaye Seck ak i ñooñam nag jamono ji yóbbu nañu leen prison dossier ba nag jébbal nañu ko juge bu troisième cabinet l'observateur ne fréquentation drogue bi fi ci réew Sénégal nag mi ngi tàmbalee jaaxal ñu bëree bëri ndax lu toll ci diirub ñaari weer rek teg nañu fi loxo lu toll ci 1 ci ay tonne drogue jeexale yëglekaay yi ci wàllu tàggat yaram sélectionneur bu équipe nationale bu Sénégal réew mi sport ma ngay xam ne ni fësal na nag liste bu ñaar fukki joueur ak juróom benn yi nga xam ne rek ñoo war a janoo ak république démocratique bu Congo ak Mauritanie yéenekaay bi ne Aliou Cissé nag jamono ji la yees ci liste boobee bokk na ci Chérif Ndiaye mi nga xam ne rek boole na ko ci bile sélection Boulaye Dia ak Kouyaté nag ñoom ñoo génn xajal Chérif mu daal di yegg si yéenekaay bi ne muy bu njëkkam moom Chérif Ndiaye nag muy ñëw ci convocation bi ñu ko convoqué ci équipe nationale